lu waral lël bi tey lël bi comme ni ñu ko waxee lël bi lu ko waral mooy que ne euh, Sénégal euh, dafa am ci banqaas bu mu laxasu muy organisation des Nations Unies ONU et ci biir organisation des Nations Unies Sénégal dafa am juróomi at wala ñeenti at yu ne mu war a dem pour jébbal naataangoom yi nekk ci ONU Euh, conseil des droits de l'homme notamment bi nga xam ne Sénégal membre la fa foog naa mandaam bi lay jeex décembre 2023 Sénégal instant membre la ci conseil des droits de l'homme de l'ONU donc dafa war a dem pour jébbal leen maanaam ba mu fa jógee en 2018 ñeenti at ci ginnaaw dafa am lu ñu ko waxoon maanaam suñu naataango yeneen réew yi daf ñu ñu waxoon nañu dañoo bëgg kat àq ak yelleefu doomu aadama yi wàllum jigéen yi ngeen def ci lii wàllum xale yi ngeen def ci lii wax ñu maanaam ay lu bari loo xam ne jàpp nañ ñun bu ko defee dinañ gën a jëmmal situation wu droit de l'homme nit ñi nekk senegal ñun nag si 257 euh, ñaar téeméer ak juróom ñaar juróom 257 recommandations yooyu. ñun am na luñ ci d'accord woon yoo xam ne accepté woon nañ ko am na fanweer daal yoo xam ne mooy 30 recommandations yoo xam ne ñun accepté wuñ ko woon ci recommandation yi nga xam ne Sénégal accepté wuñ ko woon nag am na ci yoo xam ne ci affaire wu polygamie lay wax polygamie maanaam nga war a am benn jabar am ñaar am ñett am ñeent comme ne la ko sa diina maye ñoom ba ñu waxee ne ñun ñu dindi affaire polygamie si suñu yoon si suñu charte ñun dañ leen wax ne loolu ñun mënuñ ko dindi parce que dafa ànd suñu aada ak suñu charte ak suñu li nga xam ne moom la ñu suñu diine musulman may donc loolu moo tax ñu rejeté ko am na aussi yeneen yi nga xam ne defaloon nañ ko ci ay euh, recommandation ci ay yeneen réew yu ñu ko defaloon mais yooyu aussi dañ ko dindi mooy lu mel ni par exemple da ngay gis yenn famille yi wenn am soxna soxna waa ji génn àdduna pour mën a gën a uuf njaboot gi benn ku gën a mag ci famille bi jël njaboot jël soxna si continue koo jël mu doon soxnaam njaboot doom yi continue doon ay doomam loolu la ñuy ooye levira wala sonora loolu aussi waxoon nañ ñu neñu nañ ko dindi mais ñun aussi si suñ fula ak fayda nañ wax nag ñoom ne leen ñun lii dafa bokk ak suñ caada ak suñuy tradition yi nga xam ne ak suñ diine musulman lu ñu may donc loolu duñ ko dindi dañ koy continuer di ko def ci li nga xam ne nag ñun waxoon nañ ñu ko te ñu accepté ne effectivement waroon nañ ko def te nga xam ne Sénégal tey jii jëmal na ko ba def na ko mooy nu ñu war a gën a taxawee ut ay loi yi nga xam ne dañuy gën a mën a mën a mën a protéger jigéen yi ci loolu lañ xalaatoon en deux vingt Sénégal voté benn loi bu nga xam ne dafay yokk daan yi ci wàllum viol ak wàllum pédophilie loolu moo tax depuis mille 2020 am na benn loi bu judd boo xam ne tey jii képp kuñ jàpp yoon ne yow da ngaa def lu ñuy wooyee viol wala da ngaa def lu ñuy wooyee acte de pédophilie pen bi day fa gën a yokk fu ñu la daan tëjee juróomi at léegi ñu ngi lay tëjee fukki at wala lu ko ëpp donc loolu Sénégal def na ko te loolu engagement bu mu jëloon la woon ci kanamu naataangoom yi nga xam ne ñoo nekk ci examen périodique universel et puis euh, beneen affaire bi aussi nga xam ne Sénégal def na ko mooy affaire ko comité sénégalais des droits de ñu ngi koy def texte bi ci parle sous je pense que le coordonnateur du coordonnateur du comité mu ngi nii am na benn text boo xam ne Sénégal ñu ngi ciy travailler pour que ñu mën a jëlee comité sénégalais statut bi mu nekkoon nga xam ne statut bee la yóbbuwaat ko statut A bi nga xam ne fa la mu jëkkoon nekk loolu aussi engagement boo xam ne Sénégal jëloon na ko te Sénégal euh, mu ngi koy def li nga xam ne nag Sénégal defagu ko te jëloon na ko comme engagement te loolu ñu ngi ciy xaar vraiment suñu autorités ñu gën ci taxaw mooy euh, affaire u xale yi maanaam ñu am benn këyit code des code des droits euh, code de benn code de l'enfant maanaam benn téere boo xam ne mooy tënk àq ak yelleefu xale yi nga xam ne ñooy dund suñu réew parce que ñu ngi koy gis xale yi ñu ngi leen di exploiter ñu leen di yelwaan loo ñu nekk ci mbedd bi taalibe yi seen situation doy waar war nañ ci réfléchir boo demee Kédougou am na ay xale yoo xam ne ay xale yoo xam ne ay 4 ans 5 ans 6 ñu ngi leen di liggéeyloo ci affaire or beeg affaire yooyu donc loolu yëpp dañuy violer seen àq ak seen yelleef donc loolu moo tax ma ne foofu côté boobu moom Sénégal war na cee def ay jéego te incha allah gëm naa ne ak ministre de la justice bi nga xam ne ñëw na insuffler une nouvelle dynamique bi nga xam ne au niveau du ministère de la justice euh, dinañ si mën a àgg incha allah.